conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen di may seen revue de presse sali nay jàmm ñu ànd xëy yër yéen i kaay ñu xëyandoo yéen i kaay gi di réew mi quotidien xëy séq waxtaan wu yaatu ak waykat bii di El Hadji Kayta daan nay wax na nan la dooree musique bi wax na ne ak njabootam ñoom ñëpp dañu yëngatu ci lu jëm ci wàllu musique wax na sax ne kiñ ko tuddee maanaam Souri Kayta moo doon choral Léopold Sédar Senghor nee na soirée bu njëkk bi nga xam ne maanaam tëgg na ko boobee entrée la ko defoon ci bes yawo ba maanaam benn xaritama moo ko woo na ko El Hadji Kayta bam na ko naam mu na ko li nga way dara baaxu ci bàyyil musique nee na mu gëm boppam wéy di dem wax na ay jafe-jafe yi nga xam ne am na ko maanaam ci biir musique bi single bi nga xam ne tudde na ko wuyu ma wax na ci wax na tamit lu soxal wallu musique ak wàllu mbalax nee na mbir mi boo ci bëggee avancé dem ci kanam wuroo yam rek ci mbalax mi wax na relation ak waa Midina wax na digganteem ak waa seng-seng wax na tamit jafe yi nga xamante ni ñoom am nañ ko ci woppi coronavirus yéen a kaay gi de la turbine xëy di wax ne Sénégal bu tawee rek askan wi nekk ci ay jafe-jafe maanaam tëmb ci ndox mi moo ne day lu toll si juróom-ñaari téeméer ak fukk ci ay milliards yoo xamante ni génn nañ ko ngir def ko si inondation yi waaye nag milliards yooyee ana fan la jaar te nag Sénégal yi war nañoo laaj 750 milliards yooyu maanaam fan la ñu ko dugal ndax tey la wàllu gën a aay tey la askan wi gën a nekk si ay jafe-jafe maanaam bu tawee yéen a kaay gi di Sud Quotidien nee na woppi coronavirus ji tax na petite ak moyenne entreprise yi nekk si a gii di ñu xëy fekk fa Moustapha Diakhaté la mu xamle nee na Thierno Alassane Sall livre bi nga xamante ne génn na ko amul dara loo xamante ne mën nañ ko sax wax ci mbirum secret d'état Thierno Alassane Sall maanaam ay tojaangee ki giraawaleek yàq gi nga xam ne maanaam moom la état bi dëkkee ci alalu askan wi loole la Thierno Alassane Sall wax yéen a kaay gii di Les Échos xëy ci dialogue politique bi nga xamante ni nee na impossible consensus nee na déggoo mënuta am ci li nga xam ne maanaam mooy dialogue politique bi li ko waral maanaam mooy nekk chef de parti ba pare nekk njiitum réew loolee ak réeroo daan na see am nga xam ne ñoo nekk ci ku jëgi li xam le dañoo ne daal Sénégal ñoom li ñu bëgg boo nekkee njiitum réew dootoo jiite te ab parti loole nag ñi nga xam ne ñooy waa benn bokk yaakaar dañu ko lànk ba tëdd sa naaj wa ñi nga xam ne ñoo nekk si ku jigi sa dialogue politique ba daat nañuy wax ne élection yi li ñu sàkku maanaam ñu modifier loi bi ministre de l'intérieur dootu ko organiser ti waaye nag loolee ñi ànd ak Macky Sall d'accorduñ sa yéen kaay gi nee na en tout cas li amba de Sall mbir mi ma ngi mel ni dialogue tëx maanaam ay tëx yoo xam ne ñoo toog di waxtaan ndax ak déggoo Moussa ama yéen kaay gi di suddu ko dëjee xëy na ci wax Amadou Deme nekk membre ci bureau politique bu parti socialiste nee na parti socialiste dafa war a am candidat ci élection présidentielle yi nga xam ne maanaam moom la ñu dëgmal te nee na mooy yoon yéen kaay gii di a xëy ci Boy Kayre mi nga xamante ni ay sàmba ñoo ko fekkoon kërëma maanaam génnal ko ay arme jël xari laa du moom yëpp daal koy yóbbu ginnaaw bi mu porté plainte ñu ubbi sab enquête am na ñaari jege ñaaleem yoo xamante ni teg nañu leen loxo ca mbir ma wax ne dañu sàllaale yéen di réew mi quotidien